jaajëf euh, ñuy sama gars yi ci commentaire yi ñoom Palla ak Ousmane Ngom euh, mbaadu Ousmane Ngom men Cheikh jaw euh, ak Cendu Thiam ak Milk Zo jaa ngeen jëf séeri taaw nee na Y'en am nañ problème de walaay am nañ problème <laughs> ak Alhaji Cissé Mamadou Diop ak Guèye jaa ngeen jëf ñoo ngi ciy ñëw léegi xam naa mu dina illustré su may jeexal journal bii di la Mandat ñu ngi koy nuyuwaale borom moom alinu Sow daal joxoon nañu Cheikh Tidiane Dièye hmm. Cheikh Tidiane Dièye nag ñu fàttali ni fan yee passé ñett ñi gisoon Ousmane Sonko ca prison ba bay wax ab entraînement mag euh, diine mag yooyu ak la mu fa nekkee. Mm. Cheikh mi bokkoon na ci ñi demoon. Mm. moo tax le mandat nee na mbaadu Cheikh mi mooy plan beewu Pastef. waaw am na solo sama xam nga bu ñu mënee wane wane wanaale journal bi. xam nga sama bu journaliste yi dañoo war a bàyyi quoi. le vrai plan B. Mm. de l'ex Pastef l'ex sax la utiliser moom. waaw l'ex Pastef maanaam parti ba woon. waaw waaw journaliste yi dañoo war a maam dellowaat seen seen leetar maam seen leetar journaliste yi quoi. leetar la ndax bu njëkk journaliste yi day ñëw ni kii mooy plan bi waaye tey dañuy toog naa la baadu. du baadu loolu information la li ma ko waxee ni baadu. waaw léegi mais journal des bu defee point d'interrogation mooy dafay laaj. journal journaliste am na droit poser question non non non non. mais journal day laaj. non non loolu man maa war a laaj. journaliste du laaj journaliste dafa war a informer boo amul lu mu informer mu toog. non Assane nag non non. non non journaliste day laaj journaliste buy toog daan baadu laaj laaj. mais invité nit non non da ngay invité nit mais boo toogee sa machine ni kii xaaral ma informer Sénégal yi bind lii dafa war a génn suba ñu leer ko xam li xew. nga samp say laaj samp say laaj soo nee ko askan bu ñu ko jëndee lu ñu koy doyee ay laaj kese dañ la see mën a tontu ah ñii buñ ñu fontoo journaliste yi nañ bàyyi lii ñuy def. ah Assane journaliste yi nga wax de. ki leen jiite incha allah rabbi ñëw takk soo gi jàkkaaroog El Hadj Sa Ndiogou Mbengue. ki jiite journaliste waaw kana awa jëm de. non non Ibrahima de xam nga Lissa Faye dana ñëw tàkk soo. mi mi bu ñëwee après na ko wax ak ñoom nañ nañ nañ nañ nañ xoolaat seen liggéey bi seen liggéey bi yàqu na yaxeet bu ñu demee ba nga xam ne journaliste yi yëpp nee nañ léegi Baye Assane Mesere la ñuy topp xam nañu tàkk nañ ba jeex tàkk nañ xoolaat seen métier mi xam nga ne war ñoo toog fii laaj baadu baadu Pastef nag li ñu leen di wan mooy maam ngañ suba sax mën nañu Assane Mesere baadu mooy palaa bi. xamal leen ni ñoom duñ doon amuñ duñ am candidat duñ kii dañuy tàmbalaat. yow xam nga fi mu toll nii dama laa sànq. yow li nga <laughs> man de sànkoo ma man li nga ma laaj rek si laa toll mbedd bi nga ma sol si laa aw bu boobaa yow yaa ma awal si mbedd boo xamante ni yaa sa jaar sam mbedd la. non non sam mbedd nga ma jaarale. xam nga rek alaaji xaaral xam nga Assane daal da nga ko kurpeñ bu mu bëggoon dóor ni loolu rek lay gis mooy comme nam defoon keroog ci waa fit wax ne li wax ba pare daal ñan ñoo ko jiite sax loolu la yow journal bi moo na la ko man la Modou wan ko ko ba ma wax la li ci ne nga jël mbaadu gu njëkk ga mbaadu gi daal le vrai plan B. Hmm. de l'ex Pastef. Hmm. le vrai. la wéré mooy lan. <laughs> xam nga da ngay man li nga ma wax léegi man man xoolal journal man journal yi du ma ko xool man li nga may wax laay jàngat da nga da nga ma koy wax si wolof ma xam waxal si wolof. maanaam plan B wu Pastef dëgg-dëgg. Hmm. mooy euh, Cheikh Tidiane ji ah kon kay dañoo jox information. kon kay léegi nag lan moo tax non man wax naa la loolu ñëwaat wax na lii lan lan moo tax léegi. comme moom comme moom ginnaaw nee na nee na nee na nee na parti bu Pastef Cheikh Tidiane Dièye mooy seen mooy seen plan kon na ko ñëpp xamee noonu tey. d'accord léegi yow jàngal nga fi léegi nag kon leer na tey confirmé na ni mooy mooy kii bi confirmé na ko baax na joxe hélas. <laughs> lii lépp koo ko may. waaye yaa jeex na Alaaji mm-hmm. journal Le Mandat de moo xëy bëcc lii ci ab yéene kaayam. Euh, mm-hmm. daal maa ngi koy wax léegi alaaji du ma ne ko dey ku ne mën na koo doon damay ragal ña seete woon Ousmane Sonko ñëpp moom boo sàggantul ku ne mën na ñoo xëy ne la ay plan B mm-hmm. waa xam nga dëgg-dëgg moom euh, xibaar buy jóge ci bu concerné Pastef mm-hmm. wér du jóge ci Aliou Sow du jóge ci du moom moo koy jëkk a xam Aliou Sow dafa informé Aliou Sow lu mu informé informé. dafa informé de. Euh, dafa am mbir yoo xam ne. dafa am lu muy tëddee. waaw loolu nangul ko dafa boo seetee depuis ngeen gis lu jëm ci mbirum Pastef. Hmm. seen doxalin. Hmm. lu ci bari lu ngeen di gis mbir yi di dem ci internet ngeen koy gisee mu wàcc jëm ci tele yi. Hmm. du jóge mukk ci télé yi jëm ci internet. lu waral du jóge mukk ci journaux yi jëm ci internet maanaam day jóge ci. loo xam ne bii Pastef mooy joxe xibaar ba hmm. ca internet lay jóge di wàcc waaw parce que ñoom xam nañ Aliou Sow journal la warut a mën am xibaar non non mënul am xibaar bi lu tax parce que balaa mu ko am fekk na Assane mii groupe am yi partagé ko bu yàgg ba Assane uju non non xaaral vocal WhatsApp bu Assane yee gën a gaaw Aliou ci lu jëm ci mbirum Sonko groupe WhatsApp yi lu ah. journal yi wax ba pare ci la ñuy débat texte bu génn yow lii ma la wax xamoon nga ko waxoon nga ko lii ma la wax. waaw lii ngeen di bon moom wax foofu laa <laughs> foofu di sooy. <laughs> yow wax nga ba pare a yow. yaa yaa ma ne li ma wax daa amul lii foofu laa dekk de xam nga. <laughs> ñëwal alaaj xam nga gaa yi dañuy wax ne xam sa bopp gën ñu woo di la wax ki nga doon. Hmm. man nag dama gis ni parti Pastef moom xam nañ seen bopp. Hmm. comprendre nga. Hmm. xam seen bopp a tax. bépp xibaar boo xam ne seen xibaar la ñoom. Mm. waxuma la nag xibaar boo xamante ni bii feneen lay jóge mm. maanaam seen xibaar bopp. Mm. ñoom à chaque fois boo xoolee. ci internet bi lay jaar. rajo yeeg télé yeeg journaux yi récupéré foofu wax. mais du jóge mukk fii. jëm fële. Mm-hmm. waaw parce que xam nga loolu lu ko waral. parce que gis nga presse classique bi journaux yeeg kii yeeg yooyu. maanaam dañ leen a teg loxo comprendre nga am na xibaar yoo xamante ni peut-être mën nañu ko sax bañ a jàllale. Hmm. waaw parce que teg nañ leen loxo daal parce que boo gisee journaux yi ni ñuy liggéeyee ak kii ni ñuy liggéeyee ak yooyu boo ko gisee rek di nga xam. moo tax am na loo xam ne ñoom bu ñu ko bëggoon doon forcer di fa jaaree seeni xibaar du jàll wala na muy jàllee duñ ko bëggee noonu. Hmm. comprendre nga. Mhm. moo tax lépp lu ñuy def rek fële lay jóge moo tax ma ne la eh, Aliou dafa bokk rek ci ñii eh, journal bi dafa bokk rek ci ñii. Mhm. jaxase. Mhm. jaxase waa jaxase xel yi quoi. maanaam dañu bëgg a créer benn mbir Aliou Sow na ñëw fi tontu la. non waxuma la ne maanaam dañu bëgg a xam nga depuis dëgg-dëgg. mbir mi ñëw ba dëgg parce que ñoom jàppoon nañu parce que bu bu ñu defee plan B. parti ba tas. Mhm. foofu lañ misé woon quoi. waaw loolu nag doxut. maanaam dañu ne basiiru Diomaye Faye ñëpp focus ci Basirou. ñoom ñëpp. ah waaw dama ñoom ñëpp ñu focus ci Basirou. Mhm. loolu nag daf leen a jaaxal. parce que ñoom ba léegi gëmuñu ni Pastef bokkut ak seen parti yi. Mhm. ñoom ba léegi loolu mooy seen problème moo tax nit ñuy nattee bu ñu doon xeex ak parti normal bu doon parti normal yàqu na bu yàgg. billaay. kon existé tout sax yaa ngi dégg. bu doon parti normal nii. Hmm. tas na bu yàgg pare na. fi ñu hmm. jaar ak Pastef. Hmm. kon amatut. mais Pastef du parti comme ñoom parti yi ko jàppee. moo tax nag bi mu jàllee lii. la ñu xam ni ginnaaw Ousmane Sonko li woon ci moom yëpp mën na jël mbubb ma solal ko Basirou Diomaye fay ba léegi nit ñi di xoolee Basirou comme Ousmane. loolu dafa indi beneen problème. waaw léegi lii journal bi léegi nag yii ñu lay indi. léegi li journal bi bu ngeen xëyee loolu am tombe nag. leneen mën naa am sax lu gën a garaaw. Hmm. Hmm. mais loolu du ñoom ñi ñoo koy wax. Hmm. non gaa yi ñoom fële la ñuy déglu de. fan. Euh, waaja ca waaja ca waaja ca Cap Manuel la ñuy déglu de gars yi moom la ñuy déglu de gars yi dégluwuñ keneen de. waaja ca Cap Manuel rek la ñuy déglu te xibaaram yi buy ñëw ci net ba lay jaaree de. ah, ah. waaw jaar ci journal seen jëm jot jaar fi ak jour après ñoom dañ koy récupérer rek daal di xëy wut luñ ci am tiitre ko bu ko defee daal ci tooyal tuuti. ah kon waajale ko net bi lay waxal. waa ji net bi lay waxal kañ waa ji gisoo ko fii la nekkoon fii ci dëkk bi. te bu bëggee wax day dem ci net ba wax. waaw waaw bu ñu xëyee ñëpp jël ko. waaw donc loolu moo lay wax. li ma ci gënoon marqué ndeysaan ndaje mu ndaje mu mujj mi mu amoon fële ca Ziguinchor. discours bu am solo journal yi xëy of ko. voilà net bi di ko ŋañ ŋañee. Mm, waaw mais xam nga yow tey fi mu toll nii boo ko offee da ngay dem ba mujj ko yaay ñàkk xorom sax. Mm. Mm-hmm.